bon au niveau de de l'APR il y a des problèmes sérieux que amuñu déggoo bon que Abdoulaye Daouda quand même c'est une personnalité politique directeur de cabinet mmh. président de la République président du Conseil économique social mmh. yàgg ci APR bon Aly Ngouille Ndiaye c'est pareil c'est un ancien ministre qui a occupé quand des fonctions importantes ak ñeneen ñu nekk ci APR euh, ñoom tamit war nañu bàyyi xel ci xiiro ak ngaayo bi fu mu jëm du baax ci APR du baax ci benn mhm. je je pense que ça aussi laaj na les acteurs politiques ñu ressaisir bon bañ a jiital seen bopp mhm. je pense que débat démocratique war na am que nit ñi euh, c'est un débat il y a du candidat Amadou tànn nañ ko y a des raisons ñeneen ñi tànnuñu leen y a des raisons mais mhm. qu'il y débat sain à l'intérieur de l'APR et, je pense que euh, loolu aussi bon du APR rek c'est dans tous les partis politiques il y a une absence de débat mmh. en euh, d'orientation et pour man le plus important c'est que nañu jox euh, élection bi ak xam c'est pas un problème de personne c'est un problème de de présidentiel d'un mandat ki nga xam ne am nañu ci moom yaakaar pour mu diriger Sénégal cinq ans wala dix ans mais mhm. loolu quand même mandat bu rëy la dafa laaj nit ñi waxtaan seen biir bon bu ñu d'accordee euh, ñu am seen candidat candidat bi mën a compétir comme comme ñëpp mais bu ñu d'accord aussi mais qui reste dans la discipline et le respect de l'autre et je crois que ça c'est un problème très sérieux pour euh, la pr bon c'est heureux aussi que comme euh, Ablaye est là Wan est là mm. euh, on a vécu ces crises-là avec le PDS avec le PS mm. Pourquoi on répète les mêmes crises, les mêmes problèmes et on sait aussi les mêmes résultats donc dafa mel ni on les politiques euh, ne bougent pas que que ils restent toujours politiciens accrochés à leurs intérêts intérêt parti bi ça les intéresse pas intérêt réew ça les intéresse pas même l'intérêt des électeurs ne les intéresse pas à chaque élection c'est comme ça et je pense que ça quand même débat bu bu sérieux la bon nit ñi euh, acteur politique ak presse bi aussi war na ci war na ci bàyyi xel que on va vers une euh, élection assez importante laaj na quand nit ñi gën a gën a dal gën a waxtaan seen biir